day wax ci dog bi balaa ruugee génn ak bu ruugi tolloo ci génn ak bu génnee ba noppi la ca dale ba ba yóbbu néew bi suul ko ci bàmmeelam boo boobaa ruuga nu muy def ak moom ci yooyu jamono lu lay wax ci dog bii jaam bi muy nit ki bu tolloo ci ñi nocc ruuxam aw làmmiñam day damm du mën a waxati su boobaa nag am na yeenti malaaka yoo xam ne daañu ñëw ci moom ku ci ne nuyu ko am lu mu wàqanteeg moom malaaka mu njëkk mi da ko nuyu ne ko yow day man la yàlla féetale woon lu aju ci sa wërsëg muy looy lekk waaye nag seet naa seet daal sa wërsëg jeex na tàkk benn tib rek boo wara a lekkati desu ca malaakam ñaaral mu ñëw ne ko man day nuyu naa la man la yàlla féetale woon lu aju ci sag naan seet naa seet nag li nga war a naan ci kaw suuf jeex na tàkk-tàkk la yàlla dogaloon daal da ko naan ci kaw suuf si moom jeex na malaakam ñetteel ñëw nuyu ko ne ko man la yàlla féetale woon say noo ma di ko waññi waaye gis naa ne li la yàlla bindaloon ci ay noo yoo war nooy fii mu nekk nii jeex na tàkk-tàkk mbaa boog loo cay nooy ci sa tey bakkan amatu ca malaakam ñeenteel mi nag ñëw ne ko man day man la yàlla waxan may wàññi say waxtu yi nga war am ci kaw suuf seet naa seet naa seet nag la yàlla bindoon ne moom ngay am ci ay waxtu ci kaw suuf jeex na tàkk mbaa lu ci des itam du matati waxtu mbaa boog doo ko dund ci sa teeyuk bakkan gannaaw bu yenti malaaka yooyu ñëwee nag ba génn yaari malaaka yi nga xam ne ñoo daan bind jëf ya muy jëf ñooy daal di dikk kenn ki féete ko ndeyjoor te mooy koy bind lu baax lam daan def kasees féete ko càmmooñ te mooy ka daa bind safaan ba yaari malaaka yi nga xam ne ñoo féetewoo bind jëfi jaam bi buñ ñëwee ci kii di doog génn àdduna kii féete ko ndeyjoor kii féete ko càmmooñ ka féete ndeyjoor te daa bind jëfi yiw yi moo koy njëkk wan aw kayit woo xam ne day weex tàll neex a xool ne ko xoolal li nga daan jëf ci lu baax su ko defee mu gis ko dal ciy bëgg lool ka féete ca ne ko man nag maa bind say ñaawteef kay di waa ngi nii moom na aw kayitam day ñuul kukk naqaree xool lool su ko defee nag su ko defee nag moom yi doo génn àdduna su ne jàkk kayit ak nam ñuule day tiit rus daldi ñaq ñaq bay sotti ko mu jaaxle lool nag te gëlëm di xool ci ndeyjoor ak càmmooñ ndax bëgguta gis këyit wu ñuul woowu nga xam ne ci lañ bind ay ñaawteefam su boobaa nag yaari malaaka yooyu daal dem malaakam dee mi nga xam ne moo jël roo gi nag daldi di dugg si malaakam dee moomu nag bu ñëwee bay nocc ruu gi doomi aadama yi day dañoo wuute ci dogalub yàlla ak tawfiq ja nga xam ne moom la may ñee te mayu ko ñëwee am na ci ñoo xam ne bu ñu nocc ruu gi day mel dañ koy biif am ci ñoo xam ne dañ koy nocci am ci ñoo xam ne itam dañ koy génne ndànk mel na rek ku fasoon fasub li ñuy wax raccatal fasub raccatal rek ci wolof nga xam ne boo koy reccerti maanaam dindi nañ ko ca ga day yomb lool malaakam nag saa yu rek गिरजो मलायो कोसींदा कई भुॻला मला कई यर मां बगी यान में मला कंदम टो न बची बुलगी सल कम जिज न पासे केॾा पोइ कुझी मलाक निर्मांडे गाऊ जुॻ असमान bo bokkee itam ca ña dul texe malaaka yi mbugal ya ñooy gaaw fabroo ga daal di yéeg ba tey wuti asamaan daa wax nag bu ko ko bokkee ci ñay texe furuham di jaar ak la cay xew jurte wax nag bu bokkee ci ña dul texe moom bu malaaka yi mbugal ya yéegee ruuxam jëm asamaan waxatu gannaaw ba la cey xew waye neena budé da dee ci ñey taxé mom su maraka yërmande yi yóbboo ruuga ba ci seen borom seen borom day wax ne delloo leen ruu ba ci neek ki faatu wala ba ca kër ka faatu ndax ruu gi jàkkaarloog nañu def yaramam wa ak itam ruugi xam bu baax a baax ña nga xam ne am nañu metti ci faatu gi jëmm ji faatu ak ña nga xam ne amuñu wenn xar ci faatu jëmm ji faatu yóbbu leen ruugi ba mu loog loola foofu sax la waxoon ci gannaaw ne la buñ yóbboo jëmm ji fañ koy sange ak yee cee topp yépp ruu gi ci boppam moo daan xaacu di wax ca kaw li kaw wax ya nga weesu woon ca gannaaw fu ne bu fa tolloo rek wax yu xumb ya ruuga moo ko doon wax ndax gis nga ne di faatoo malaaka yóbbu nañ ba ci seen waaye seen moo wax nag ñu delloo ca kër ki faatu ndaxloo gi jàkkaarloog yaram wa nañu koy def jàkkaarloog ba tey nit ña fa nekk ya ca am métier ci faatu waa ji ak ña nga xam ne amuñu métier ci ak faatoom moom mi faatu ci boppam moom faatu na rek du mën a wax dara waaye roogi mooy xam te mooy wax wax yi mel ne ya nga weesu woon ca gannaaw nee na ñiy nett li moom amuñu ak ci lii waxagum waaye nag buñ yóbboo jëmm ji ba suur ko ci bàmmeelam ba mu des nag laajteem bàmmeel ma foofa la ñu ci ruu gi ci yooyu jamono ana nu muy def yaram wa am na mu ne bu néew bi duggee ci bàmmeel ba ba noppi dañu delloo si ruuga mu nekkaat ca moom na mu nekkee woon ci àdduna ñu dij ko laaj ko bu dee ko ñi laaj am ñu ne déedéet ruu gi du delluwaat ci yaram wa te it ruu laaj waaye jëm yaram wa ci boppam moom du ca doon dara ruu gi rek dañuy laaj ñenn ñu ne ruu gi dana dellu ci yaramu waa ja waaye nag du mel na meloon ci àdduna dana ca dellu nag ba nga xamee ne buñ ko laajee mën a tontu rek waaye nag du ca dellu ba waaj a am kàttan na meloon ca àdduna ba mu faatoogut ñenn ñi ne ruu gi kay moom du dellu ca yaramu waaja day nekk diggante yaramam ak càngaayam wax yi boo ko seetloo yépp al ashar yi andi na ko ci téere boobu tudd shajaratul yaqin sëriñ bi nag bu daa tudd laajum bàmmeel danaa wax naa dañuy delloo rooga ca yaram wa ci kem loo xam ne daal buñ ko laajee dana mën tontu rek mel ne kon ca na waxee daañu ko delloo rooga waaye du mel nag na meloon ca ba muy dund ci àdduna te faatoo gu toon